kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya 44 ci suuratu yuusuf ci suñu borom di waxe ni qaalu adghaasu ahlaam in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه waman tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin xam naa mbokk yi bala ñuy commencé tey jii télévision boobu ngeen di dégg ñu koy tuddee Islam TV dañ ne woon dañuy def seen lancement fële ci hôtel Radisson yàlla dogal nag ñu boole woon ñu ca ña nga xam ni ñoom ñooy ña ko jiite di leen xalaatal donc daje boobu nekk suñuy daje moom waxtaan wuñ fa war a def it ñoom ñu jàppoon ni man maa ko war a def loolu moo taxoon ma ne leen nag lii di tafsir bi moom mënu ma koo bàyyi xanaa li ñuy def kay léegi mooy dañu fexe incha allah ñu dem luñ ci mën a jël ñu jël ko ca bu 6 heures yi ñu arrêté ma jéem a dem foofu fekkee daje boobee loolee kon ñu bàyyi ci xel ñu ngi sant yàlla it bi nga xamee ni mi ngi tombee gis aljuma ñun ñëpp jot nañ jël benn xutba kon jàpp naa lu ñu mën a jël ci tafsir bi it danañu doy incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane.
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم مني وقالوا أدغاث أحلام نوتا بليانين لي دي أو سيل رك أي جنت موي جنت تغلو وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين te ñun day gént yu jaxasoo yooyu ñu tudda ko ahlaam loolu moom xamuñu nuñ koy firee wa qaala alladi najja minhuma noonu la waxee ka nga xam ne moo muccoon ca ñaar ña nekkoon ca kaso ba wa dakkara baada umma mu fàttaliku gannaaw ab diir ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsiluun man mii maa leen di xabaare ci lan mooy firi géntug buur bi yónni leen ma bañ ko yónnee mu dem ca kaso ba ne yusuf ayuha siddiq ay yusuf yow aju ko dëggu ji aftina fi sabii baqaratin simaan ubbi ñu waay ci juróom ñaari nag yu duuf yaakuluhunna sabun ijaaf mu leen di lekk juróom ñaari nag yu loof wa sabii sumbulatin xudur ak ci juróom-ñaari góob yoo xam ne nii dafa doon yu wert wa uxara yaabisaat ak yenn yoo xam ne nii dafa doon yu wow koŋ laalli arjiu ila nnaasi laallahum yaalamuun ngiree ma mën a dellu ci ci nit ñi ba nit ñi doon ñuy xam qaala tazra'uuna sab'a sinina da'aba mu ne da ngeen di bay juróom-ñaari at yoo xam ne day tegaloo ci aada ca mooy lépp mel noonu ci baax fa ma xasattum waaye nag lépp loo xam ne góob ngeen ko fa zaruuhu fii sumbuli bàyyi leen ko ca gub ba nga xam ne ca la nekk ca gub ba illa qalila mimma taakuluun xanaa lu dul leen lu néew ca la nga xam ne da ngeen koy lekk thumma yaati min baadi zalika sab'un shidaad gannaaw ba nag dana am gannaaw loolu juróom ñaar yoo tar ci ay at yaakul na ma qaddamtum lahunna yoo xam ne daañu lekk la ngeen jiitaloon ñel leen illa qalila mimma tuxsinuun lu dul lu néew loo xam ne da ngeen koy denc ngir waajal ko aw jiwu summa yaati min baadi zalik waaye nag dana am gannaaw lii lépp dana ñëw gannaaw lii lépp aamun at moo xam ne fiihi yuxaasu naas nit ñi daañ leen daañ leen ca wallu ci ab taw ay daan ca tawlu wa fiihi yasiroon ca daañ mën a desal loo xam ne daañ ko nekk di ko nal di ko def ak diw wala ñu koy def sangara mi ngi noonu mbokk bañ fi mujjee daje démb suñu borom dogal na buur bi tëdd na gént daa di woote li ñuy tuddee tey conseil des ministres gaa yi ñëw ci palais bi mu ne gént naa gént gu yéeme ca mooy dama gis juróom-ñaari nag yu duuf nag wu nekk am na nag bu loof bu ko tiim di ko lekk gis juróom-ñaari gubu dugub yu vert ay yu tooy yu ak juróom-ñaari yoo xam ne daa wow léegi lan mooy firi loolu gaa yi na ko buur daal loolu gént yu jaxasoo rek la ñun nag gént yu jaxasoo mënuñu koy firi mi ngi noonu donte ne wax nañ lu ñu xamut waaye li buur bi wax kay dëgg la mooy ruya la yeneen ci bàyyi sam daan wax ne ar ruya min arrahman wal xulm min ashaytan gis lu yéeme luy mën a jëriñ ci yàlla lay jóge amma lay jaxasoo ci gént ya rawatina di ànd ak ay jigéen ak ay soir ak yooyu mën a ci seytaane lay jóge bi loolu amee suñu borom nee na ka muccoon ca biir kaso ba te yuusufa newoon ko yow kenn du la rey dañ lay delloo sa poste waaye nag boo demee ci buur wax ko samay mbir waay ndax ma nit maa ngi bëgg a yàgg ci kaso bi suñu borom nee na waa ji fàtte jàngoon nañ ko démb amma tey mu ne ma fàttali ko gannaaw ab diir diir boobu mooy lan mooy juróom-ñaari at déppi mu teg buntam ci tànk kaso bi génn la ko seytaane effacé ci xelam lan kan mooy yusufa mais bi buur bi waxee rek automatiquement yusufa ñëwaat ci moom mu daal di jóg ne buur man mii maa leen di wax lu gént gi firi ah noonu koy waxee mënu yónni leen ma su ngeen ma yónnee léegi léegi ma ñëw wax leen lan la gént gi di firi gaa yi na ko gaawal bokk mu daal di départ jëm ca kaso ba lépp juróom-ñaari at yépp Yuusufaa ngi tëdd ci kaso bi ñu bàyyi ci xelit mbokk julit ni nit ñi pesé ak ni yàlla pesé du benn xoolal jamono jooju ci kaw suuf waxuma biir Égypte waaye ci kaw suuf ki gën ci jaami yàlla yi mooy Yuusuf alayhi salaam te Yuusufa moom gis nañu ne ma nga nekkoon ci biir kaso ba loolu kon ñu gis suñu borom ne waa ji ñëw ne ko Yuusuf ayuha siddiq ayu mi dëggu gaa yi aji dëggu garaat la bu kawe la yeneen ci bàyyi salaam daan nañu wax ni maa ngi leen di dénk ngeen dëggu ndax kat dëggu day yóbbu ci mbaax ca mbaax mooy yóbbu àjjana nit du deñ di jéem a dëggu ci ay waxam di dëggu ci ay jëfam ba baa yàlla ne malaaka yi tudde leen ko siddiq comme ni waa ji tudde siddiq bu ko defee dañ naan muhammad siddiq fatima siddiq ibrahim siddiq maryam siddiq ila axiri ay yow mi dëggu firil ñu waay gént ak buur bi ca mooy juróom-ñaari nag yu loof di lekk yu duuf ak juróom-ñaari gub yu wert ak yu kii loolu lu muy firi waay ngiree ma gaaw léegi dellu pale ba ndax kat ñépp a nga toog di ma xaar firil ma ko ma dem ngiree ñoom ñu xam yusuf alayhi salaam na leen loolu de li muy firi mooy da ngeen bay juróom-ñaari at yu tegaloo lépp doon lu baax mbokk bu ca tegoon rek na leen da ngeen bayaat juróom-ñaari at dara du baax kon di firi na génte gi waay waaye yuusufa yemul ci firi génte gi daa firi génte gi boole ca laa leen biir ca loo xam ne feeñul ci géntug buur bi da ngeen am juróom-ñaari at yoo xam ne day tegaloo lépp dara du manqué ci ci mbay mi ngalawaay li ma leen di dénk bu boobaa lépp lu ngeen bay rek bu leen ko bojj bojj ko nag ndakaaru du ko xam ay bu leen teqalee dugub ji ak éppi bi ci boppam bu leen ko bojj bàyyi leen ko ci ah gubam léegi nag ngeen xool li nga xam ne moo doy ci lekk ngeen jël ko lekk ko waaye li ci des lépp denc leen ndax kat bu juróom-ñaari at yi passé yàlla dana leen nattoo juróom-ñaari at yu tar yoo xam ni nii dara du am su ko defee juróom-ñaari at yooyee la ngeen dencoon ca magasin ya dana ko lekk ba mu jeex waaye nag lu ngeen lekk-lekkit bàyyi leen ci aw jiwu moom lay wax illa qalilan mimma tuhsinun loolu it moo tax suñu baykat yi bu ñu xamoon dëgg-dëgg alxuraan jaar ci teggin alxuraan bés bu ne nga dégg ay coow bu dul jeex ca mooy nawet bi gouvernement bi joxuñu aw jiw nangam nangam ila axiri waaye mbokk baykat bu nekk la sunu maam yi daan def suñ masaan bay seen tool bala ñoo góob dara lu ñuy jaay wala lu ñuy lekk dañuy xool gerte gi gën ci gerte gi dugub ji gën ci dugub ji ñu daal di koy takk daal di koy lem am fuñ ko denc loolu mooy nar a nekk jiwu déwén loolu dañ naan gan dong nga daan tax ñu génne ko ak luñ masaan xiif xiif loolu duñ ko lekk xanaa daal gan bett leen guddi ñu jaaxle mi ngi noonu waaye bu dul loolu duñ ko def kon loolu la leen wax mu ne nag gannaaw loolu yàlla dana leen nag may nawet boo xam ne dara du manqué da ngeen mën a lekk mën a dajale nal ay diw mën a def lépp mbokk kon lii mooy la nga xam ne yuusufa firi na génte gi ba pare laa yéene leen biir waaj a départ nag jëm ca pale ba kon mi nga noonu Cheikh Ousmane
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حق الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بارك الله فيكم وقال الملك اتوني به بور بداج ne dem leen indil ma ko falamma jaahu rasul bam dikkalee yuusufa yonentu buur ba qaala rji ila rabbik mu ne ko dellul ca sa boroom fasalhu ma baalu niswati allaati qattacna aydiyahunna nga laaj ko lan mooy mbiru jigéen ña daggoon seeni loxo inna rabbi bi kaydihinna alim suñu borom yàlla day ci seen pexe ku ko xam la buur ba qaala ma xatbukunna is raawattunna yusufa an nafsi mu ne waa léegi nag tey lan mooy seen xabaar ay ban discours ngeen di wax ca ci la nga xam ne ba ngeen di sàkku yusufa ci bakkanam qul na xaasha lillah ñu ne ko ah sell ñeel na yàlla ma alim na alayhi min suu yusufa day xamuñu ci moom leen lu bon xaalat imraatul aziz al aana xas-xas al xaq noonu la waxee jabaru premier ministre ba léegi nag feeñ na dëgg mi ngi noonu ana raawatuhu an nafsi man mii maa ko doon sàkku ci bakkanam wa innahu la min as-sadiqin te moom day ci ñu dëgguñu la bokk zalika li ya'lama anni lam axunuhu bil ghayb lii nag seede naa ko ngiree mu xam ne waruma ko ci jamono bi mu fi nekkul wa ana wa anna allaha la yahdi kayda al xaa'inin ca yàlla du jubal pexey ña nga xam ne ay warkat lañu mi ngi noonu mbokk buur bi biñ ko nettalee waxumaa ni yuusufa firee gént gi waaye nim leen laaye biir mu mu mu ne nañ ko jële li yuusufa bi waa ji buur bi yónni ñëwee na ko génnal kaso bi dem wuy ji buur yuusufa na déedéet duma mën a génne noonu comme man dañ maa tuumaaloon ne ma man may nekk di topp jigéen ñi léegi ba tëj ma kasu léegi kay nañ ma jugé atte ma ba xam li may wax maa ko def nañ dem laaj jigéen ñi ba xam man lan mooy suma mbir ca loolu it dañ ko sopp ci nit mooy doomu aadama bi daa di mën a setal boppam yuusufa ne leen jigéen ñi nga xam ne ñoo demoon dagg seeni loxo laaj leen lu taxoon ñu dagg seeni loxo ndax maa maa ko provoqué wala ñoom ñoo ko provoqué mi nga noonu yàlla moo gën a xam seeni pexe bi loolu amee bu boor bi daal di woote assemblée générale jigéeni notable palais bi yépp ne leen waaw yéen lan ngeen may mën a wax tey nag yéen ñii xam ngeen ne yéen a doon sàkku yuusufa ci bakkanam ca buur ba mu koy tëj kaso it xamoon na ko da nga noonu xamoon na ko waaye dañ jàppoon ne Yuusufa nekk Yuusufa nekk na danger lan mooy seen mbir léegi te booba mi ngi bëgg ñoom ñëpp ñu setal Yuusufa ngir Yuusufa mën a génn ñoom ñëpp ñu àndandoo ne sell ñeel na yàlla xamulu ci moom lenn lu bon nga la wa yow ndawal julit seedi ba ñu seedil Yuusufa fexeel am ko mooy ñu dem benn jigéen du seede ne mas ngaa dox ci moom tànki caaxaan mi ngi noonu maa alim na alayhi min su kenn xamul ci moom lu bon ca la jabar premier ministre bi génn nag na léegi dikk na xas-xasa mooy dikk na mi ngi noonu wala li ida xas-xas dikk na feeñ na la nga xam ne moom mooy dëgg man mii maa ko sàkk woon ci boppam te yuusufa ku dëggu la mi ngi noonu yuusufa ku dëggu la lu mu wax rek dëgg la gaa yi di ñaari seede ngoog day waa ji ko doon jël si nee na ko yusufa ayu siddiq soxna siit nee na la sadiqin nga loo yoon dawal julit xamal ne gàllaaj gi gën a rëy gi ngay gànnaayoo dëggul heure boo dëggoo rek day tax doo bëgg a def yu bari ndax loolu xew da ngay wax dëgg dëgg mooy mooy baasu nit ki baax san mooy baasu nit ki bon jeex na innahu la min as-sadiqin lii nag seede naa ko ngir mu xam ne ba ma ko tuumaalee ci kanamam it tey bi mu fi nekkul moom tuumaalu ma ko setal naa ko te mooy bii dana fay bale mi ngi noonu ca it xam naa ne ni ah suñu borom yàlla du jëbal pexe yi képp kuy pexe ndax pexe woon naa ci kawam ah tuumaal ko tëj nañ ko kaso waaye loolu lépp la ma ci jublu woon ne dañ ko tëj kaso ba toroxal ko tey jii yàlla yëkkati na ko misra gi yépp xam nañ ne la leen di sauver mi nga jóge ci moom kon yàlla du jëmal pexe yi képp koo xam ne day pexe loolu it yow soxna si gànnaayoo ko yow waa ji gànnaayoo ko bu la seytaane xiirtal mukk ba nga jóg naan da ngay pexeel mbokkum julit ca service ba ca sëy ba ca kër ga ca association ba ca syndicat ba ca sport ba ca lu mu mën a doon bul fexe mukk jóg di fexeel mbokkum julit ndax inna allaha la yahdi kaydal qaai qaai xaainin heure booy fexe lu mu yàgg-yàgg fexe bi sa këpp sa kaw lay mujj këppu mi nga noonu Cheikh Ousmane jazakallahu xayra suñu borom mu ni wa ma ubarri'u nafsi la soxna premier ministre ba wax man day du man may kii sàkku muccal sama bakkan inna nafsa la amaaratun bi suu bakkan day aji digle la lu bon illa ma rahima rabbi lu dul bakkan bu yàlla yërëm inna rabbi gafuru rahim sunu borom yàlla nag kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la wa qaala al maliku utuuni bi noonu la buur ba waxee ni dem leen indil ma ko léegi nag astaxlishu li nafsi ma jagleel ko sama bopp falamma kallamahu ba mu demee ba yusufa wax ak moom qaala innaka al yawma ladayna makinun amin mu ne ko yow day gis na ki tey nekk nga ci ñun koo xam ne ku ñu dalal la jox la place te it ku ñu wóolu nga à cent pour cent mi ngi noonu qaala ja'alni ala xazaini al ard yusufa ne ko def ma ca la nga xam ne mooy magasin suuf yi mooy ministre de l'économie et des finances rek inni xafizun alim man day nekk naa kuy aji wattu ca it aji mooy ku wóor ca it alimun xam naa nu ñuy ah stratégie bu ñuy mën a gérer la nga xam ne mooy loolu wa kazalika makkanna li yusufa fi l ard naka nii day lañ dalali yusufa ci kaw suuf yatabawwa'u minha haythu yasha mu nekk di dal ci suuf fu ko fa neex nusiibu bi rahmatina man nasha ñooy laalale suñu yërmande ñeel ku ñu soob ci suñuy jaam waaye nag wala nudiu ajral muhsinin duñu neenal mukk yoolu ñay rafetal wala ajrul axirati xayrun lillazina amanu ca fay ya nga xam ne muy am ca àllaaxira day moo gën ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm wa kaanu yattaquun boole ca ragal yàlla mi ngi noonu mbokk ñi ngi ba tey ci réunion ba buur ba di réunion ak jigéen ña soxna su premier ministre ba setal na yuusufa tu daa di jàpp ne kon moo tooñ waaye mu ne man day duma muccal sama bakkan kon man maa tooñ waaye nag xam leen ne du sa bakkan kese de bakkan moom day diglu lu bon lu dul bakkan bu yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm suñu bakkan mbokk doomu aadama bi am na lu koy nekk ci bakkanam am na ñoo xam ne seen bakkan amaaratun bi suula te leen di digal lu bon seen lu bon moo ëppul seen lu baax am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak nafsul lawaama mooy bakkan boo xam ne da leen di yedd daan tarxis dafi njooxum waaye fu ñu ko defee bakkan bi yedd leen tëb dellu gannaaw am na nag ñu yàlla wërsëgal ak nafsul mutmainna ñi nga xam ne seen bakkan dal na ba du ñu dem mukk di jalgati di dugg ci ay kabair abadan moom la suñu borom di wax naan yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya mbokk bakkan dañ koy war di nemmeeku di xeex ak moom di ko jéem a sellal qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha jéem a xeex di ko sellal xam ni dafa jéng jëm ci bànneex mi ngi noonu borom bi nag ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa loolu kon bokk na lay gën a nekk gàllankoor ci jaam bi am ngërëmal boromam ci jaam bi am ajjana mooy bakkanam bi bokk na ci it la koy dooleel mooy sheytaan bokk na la koy dooleel mooy taaru adduna bokk na la koy dooleel mooy yéefar yeeg naafiq yi loolee da ngay gis ne moom mooy mbir bi donte ne sheytaan yi yowmal qiyaama bu duggee safara ñam àndal dugg fa yépp gaa yi di yedd bokkul ma kii bokkul mu ne hey falaatalu mu ni walu mu anfusakum bu leen ma yedd yedd leen seen bakkan rek doomu aadama bi seytaane ay pexem lu néew la boo yaree sa bakkan sellal ko seytaane du mën ci yow dara boro bi mu waxee loolu nag ca la buur bi yónneewaat beneen ndaw nag da ko mu nettali ko mbir bi yuusufa jigéen ñépp setal nañ la xam nañ ne ku dëggu nga ku sell nga ñoom ñoo la doon sàkku nga leen di daw comme ni ñuy dawee ab xaj yow ku sell nga indi leen ma ko ma jagleel ko sama bopp mu nekk ci samay particulier ñi ngi noonu bi yusufa ñëwee wax ak buur bi dana ko wax xam naa wax ko cosaanam ñun maa ngi jógee ci kër gu yoneen ci kaza wa kaza comme na mu ko waxe woon ñoom nekkaloon ca kaso ba buur bi na ko tey jii day jox naa la place bu kawe ci gouvernement bi ca it yow moom wóolu naa la à cent pour cent mi ngi noonu wóolu naa la à cent pour cent ca loolu it mbokk da ngay gis suñu leen ci alislam nee na yàlla bu bëggalee buur jàmm da koy wutal ay conseillers yoo xam ne nii yu baax lañu yu wóor lañu duñ ko wor amma bu yàlla bëggalee buur bon buur musiba bëggal ko réewam da koy boole conseil yoo xam ne nii duñ ko wax dëgg te dañ koy wor mi ngi noonu lii nag bi mu ko waxee yuusufa ne ko kon féete la ma ma yor trésor public bi mi ngi noonu ndax kat man wóor naa ci gérer loolu ca it xam naa nuñ koy gérer loolu it mbokk muy ñaar yu jafe mooy nga gis koo xam ni ku man liggéey la ba pare wóor demal ca maçon ya mécanicien ya ak loo mën a dem foo mën a dem lu ci bëri da ngay gis ñoo xam ne liggéey bi moom mën nañ ko lool waaye nag boo jëflanteeg moom daañ la war wala nga gis ñoo xam ne wóor nañu waaye nag mën nañu liggéey waaye nag da nga dajale dix personnes doo ko caa fekk trois yoo xam ne boole nañ ñaar yi mooy wóor nañu ca man nañu loolu la Yusufa seedeel boppam mooy li ñuy tudde tey ay CV xale bi indi CVM ci direction man kat jàng naa lii jàng naa lii mën naa lii mën naa lii loolu mbokk nekkul lu ñuy bañ fi yéeg nekkul di xëccoo mbir moo xam ni ku la ko gën a yey ma nga fa am na xadis bi yonente bi alei salaam doon wax naan sunu mbir mi ku ñu ko laaj duñ ko ko jox ku ci xéer duñ la ko jox te booba dañoo yëg ne yow sa intérêt personnel nga jiital ci intérêt général bépp mbir mu l'islam di joxe am ku ñëw di ko laaj ñu dem ba yëg ne intérêt personnel am la jiital kenn doo ko ko jox bu safaanoog li am suñu réew mi kuñ name ministre ay mbokkam di tëgg ko fecc ku ñu wàcc ay mbokkam di kaas xanaa moom du mbiri réew mi rek mooy kon ku nekk da ngay gis tey sa intérêt ngay jiital ci intérêt réew mi suñu borom yàlla nag nee na kon yusufa ngi noonu gérer li gën a sensible ca réew ma muy économie réew ma borom bi nag nee na nii laa dalale yusufa ci kaw suuf dañ koo jàppoon prison di ko jaay ab jaam jàpp ko mu nekk ab jaam ca kër premier ministre ba jóge kër premier ministre dem nekk prisonnier ca kaso ba suñu borom nag léegi nee na léegi boyal naa ko léegi fu ko neex dem fu ko neex dal ci kaw suuf sama yërmaande nag mi ngi nii maa koy jox ko ma neex te mbokk gis nga yàlla bi mu bëggee jox yusufa yërmaande fan la ko jaarale ma ngi ko jaarale ci géntu buur ba looloo tax sunu maam yi dañ daan wax naan wërsëg dana jóge ci njoñ mi ngi noonu wërsëg dana jóge ci njoñ ca moo ji ne ne yow ndawal julit bul découragé ci àdduna mukk ragalal yàlla toroxlul sellal sellalal wallahi fa la yàlla di xettilee di la wërsëgal da ngay toog un an ci gannaaw ku la ko waxoon dana la jaaxal loolu mënta nekk abadan mi ngi noonu nusib bi rahmatina man nasha waaye suñu borom mu ne du ma neenal yoonu képp koo xam ne day rafetal rafetal mooy lan lépp looy def na nga ko rafetal nam nañ ko war a defee ab liggéey la wala ak jaamu yàlla la bu dee jullee rafetalal koo rafetalal lim ma loon rafetalal def ko ci yàlla tax suñu borom nee na ku mel nii moom du ma neenal ay jëfam lu mu yàgg-yàgg dana ko fay su ko defee nawal jullit mi ngi noonu tant que yaa ngi yëg yaa ngi rafetal su diine rafetal njort man ngaa jaar ci ay tolof tolof yu dul jeex waaye suñu borom du neenal sa jëf lu mu yàgg-yàgg sa àjjana ma sa ñëw laa nu diw ajral muslimin suñu borom yàlla di wax ne lu ma mën a joxe ci àdduna it bu ñaa bu ndaw a ndaw a ndaw la même buñ loon namee woon président des États-Unis ce n'est rien rien rien par rapport ak xiiwal yay xaare ci àllaaxira moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni wala ajrul axira la nga xam ne mooy payu àllaaxira day xayrun lilladina amanu wa kaanu yattaquun payu àllaaxira moo gën ñeel ñan ndax borom xam-xam yi ndax ñamul xam-xam ndax ñi naan shérif wala ndax ñi naan jóob lañu sant wala ne leen laa mbokk julit payug allah xeer ga ñépp ca am accès ñaari charte donga la laaj al iman wa taqwa képp koo xam ne gëm nga yàlla bokkaale wu ko dara ragal nga yàlla sa kemtalal kattan pay gu rëy rëy rëy ma ngi lay xar allaxira pay goo xam ne nii la ca gën a tuuti ca pay ga dana ëpp nguur gi nekk ci sunu àdduna bi fukki yoon loolu mooy ña gën a tuuti la pay ca àllaaxira kon payug àllaaxira lu rëy la yal na yàlla jagleel ñu payug àdduna ak payug àllaaxira boole ñu min al siddiqin boole ñu min al muhsinin boole ñu min al muttaqin innahu ala kulli shayin qadir mbokk kon ñu ngi noonu ah est ce que dise te ñu dama yaakaar ne ñu ñu ñaan rek parce que buñ duggee ci qissa ixwatu yusuf day doon mbir moo xam ne ni dafay gudd su ko defee comme topp nañu yusufa ba léegi nekk na boor bu ñu fi yàlla dajalee suba insha allah nag ñu dugg frère ya ka jëloon sànni ko ca teen ba jàpp ne teqale ko nag moom ker keroog nag ca la ñuy mën a dajaleeg yusuf tey moo nekkoon suñu quatrième épisode insha allah suba mooy nekk suñu cinquième épisode ñu ngi ñaan mbokk yi it jarul nga ñëpp di tasaaroondoo te ñoo jël continuer jàng suñu alquran ba ci kanam mi ngi noonu toogaay bi ngay toog di jàngal quran yiw bu rëy la yàlla na yàlla nangul ñu nangul leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain barakallahu fikum